Aïcha jërë ngeen jëf mbokk yi suivre solution TV solution info amaan nañu mbégte comme niñ ko baaxoo di defee leen di bu jot ci l' émission des émissions ñu fas yéene ci ànd ak Sanjogu Meng nuyu nag mbooleem internaute ak ñu ñuy suivre ci biir réew mi yëpp rawatina nag sénégalais yi nga xamante ne ni ñoo nekk bi ci réew di ñu bàyyi xel saay su nekk ci l' émission des émissions ginnaaw bi ñu leen nuyoo dem nañ nag ba diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm. ñanal ko nag sëriñ Sidi ma sëriñ Abdou Lahad Mbacke yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñanal mbooleem xalifi ci biir réew mi ñu fas yéene ci ànd ak nag Sandiogou Mbengue comme ñu koy defee saay su nekk dañ koy daal di bàyyi mu nuyoog euh, internet yi sur solution TV ak solution info alaaji maa ngi lay Eh, ma jigéen ñi ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow di dem ba Touba Mbacké nuyu xalif général des mourides sëñ di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi sëriñ Abdou Lahad Mbacké mhm. ñu koy ñaanal Mbacké mu yàgg fi lool tànd ak wér di ko ziar bu wér nuyu bu baax sëriñ Xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp nuyu sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makaarimul Axlaaq nuyu mhm. kilifa diine yeewoo ci biir réew mi mhm. am mbégte ak kontaante di jàkkaarloo génn di nuyu sénégalais yi nekk bitim réew ak ñi nekk ci biir réew bi yëpp ñu leen di nuyu di am ci ñëpp te ak kontante di leen wax ne leen ñu tàmbali semaine bi ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin mm-hmm. ñu ngi lay ziar mm-hmm. maa ngi delloo ziar bu baax a baax Ah, di wax ne nag comme ni ngeen koy bàyyi xel saay su nekk rek l'émission des émissions ñëwaat beneen yoon ak ah, yenn xalaat yi ci biir ah, plateau yi ak waxtaan yi ñu indi ci cof ci lenn indi ko ci taabal bi su ko defee alaaji daal di si joxe xalaatam tey nag daañu ko dooree ci émission bi di penco am di am fi ci Walfadjri ñu dalaloon nag waa jooju ñuy wax Mamadou duggee waaye nag moom dafa mujjee daal di tons ki nga xamante ne nii moom moo di Pape Matar ak euh, mustafa Diop mi nga xamante ni nii moo doon diriger boobu le plateau daañu ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo dégtal leen affaire bi ngeen xool ko alaaji indi ci jàngatam ba ba Badara Gajaga moom nag ma nga woon fële ca plateau bi ñuy wax jàkkaarloo ca TFM moom itam àdduna ci problème mu Barthélemy Diaz wax nag mbir yi fa mu dooree ak fi mu yegg si euh, digganteem ak Barthélemy Diaz ba bañ koy jël si di ko yóbbu. ci jamono yooyu nga xamante ne ni problème mu Ndiaga Diouf amoon na indi na ci ay explication léegi léegi ñu yaatal ko jeexalee nag ak ki nga xamante ne ni moo di ndey Fatou Ndiaye mi nga xamante ne ni kii di Serigne Saliou Gueye daf ko daal di recadrer ci ay werante yu amoon ci seen diggante. jëm ci candidature Ousmane Sonko ak euh, kii nga xamante ne ni moo di numéro 2 bu Pastef muy Bassirou Diomaye fay am na lu ñu wax ci article L57 léegi léegi ñu tagal leen ko indi jàngat bi ay ca nag ak euh, Mamadou Gueye ni ma leen ko waxee léegi léegi rek. ne ñëwoon na ci émission bi di jàkkaarloo am ay kàddu yu fa yëkkati jëmale ko ci Pape Matar Diallo Moustapha Diop ak Mame Birame Wathie ñu dem xooli boobule extrait dellu si waat. non bu ma dagg Moussa. non non non je veux pas je veux pas vous laisser non vous vous n'allez pas me sortir mais qu'est-ce que la mooy loolu. maire euh, mais Ousmane Sonko bëgg ma dagg. Guèye Guèye Ousmane Sonko bëgg ma dagg. Guèye Mamadou Guèye bu ma dagg si

c'est le kon Ousmane Sonko dañ ci wax. parce que moom moo fi saaga ndey ñii ñu taal dëkk bi. c'est ku fi wax ñi turé mi ñu wax sa candidat. ku fi wax dëkk bi. s'il vous plaît ce débat wax ci Macky rek ngeen di mer kenn luy loolu. non il wax. non seulement vous êtes insolent vous parlez ngay wax yow yaa xamul ngay wax yow. Pape yaa xamul ngay wax. plaisir yaa xamul nga moo nañuy bind si tout. alors bu tax ma wax de. man dama ko mu wax ma bàyyi mu wax waaye su ñu waxee président ngeen tëb dal lan la kay lan la yëg ngeen xam nga sànq xam nga arrêté waay ngeen Abdoulaye waay xam nga sànq quand on parle du président ngeen ngeen yéen moom nit ñi autorité de la chose jugée waay Euh, ma nangul la ko moo taal dëkk bi parce que loolu droit loolu droit moom moo ko moom moo ko wax. Euh, que voilà tant que s'il autorité la chose rek. dañuy jàpp que le jugement n'est pas définitif. président Macky Sall jiite réew loolu moo ko jiite. léegi dañuy wax ci moom. communicateur traditionnel monsieur le communicateur traditionnel. maam Birame s'il vous plaît. maam Birame s'il vous plaît. s'il vous plaît. non yeggale na mun tuuti sa tàngoor bi. Ah, d'accord alors Abdoulaye Nguer li ma li ma li ma li ma.

mooy xam-xam bu ñu bàyyee communicateur traditionnel bi yuux ba pare ñu waxtaan xam-xam. yow mi nga kàttu université xam nga xam dara. xam de droit laa génne yow nga kàttu université. nga xam dara ñu jàng bay jàngale université. Euh, nga dof nga xamoo dara article yow nga kàttu université. niveau. amoo niveau yow. amoo niveau tu xam nga lu mu wax. kàttu da nga si kàttu charge. xam nga lu mu wax amoo dara yow yaa xamul dara yow xam nga communicateur c'est un masque, il a son master xam nga lu wax c'est le conseil juridique des pour Diourbel nee na s'il xamoo dara les contumax waaw yow se constitue ou vient à arrêter carte char nga naan chroniqueur nga carte char nga yaa ngi doo dem ci robinet bi char nga laissez-le s'il te plaît Mame Birame s'il ay Aïcha jërëjëf euh, Modou Diouf ak euh, abdu Top ci montage bi yi dégg nga euh, kii di Mamadou Guèye parfois da ngay gis plateau yi nit ñi nit ñuy meree seen xol yi di jóg ba yenn kàddu yi ñaasante yi di ci am mais tudd na ba tudd Ousmane Sonko ni moom moo saaga nit yi doon saaga président de la république taal dëkk bi te su ma juumul yàgg naa toog di la dégg ngay wax mosoo dégg fu ñu Ousmane Sonko yëkkatee ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci président de la république te président de la république itam moo jiite réew mi mënuñu bañ ñu di ko tudd di wax ay waxam. waa xam nga euh, da nga ne mer mais merut. Mm. Euh, mais pareen saa yi da mer merlu pour génn ci mbal mi. ah bon parfois il faut. def technique pour génn ci maanaam loolu la def merul mais il faut que mu jéem a mel ni ku mer euh, pour génn ci li nga xamante ni bi mooy guuta gi nga xam ni euh, ci la ne parce que guuta la parce que parensaay nit ki bu munta défendre dara li nga xam ni mooy mbir mi maanaam da lay tappaas hmm. c'est que parfois nag yow yaa war a intelligent xam ni kii dafay tappaas léegi bu ko fekk ci terrain bi nga xamante ne bi moom la ne mm. parce que li koy duma du doon ay xuloog moom delloo ko li mu bëgg fi mu la bëgg woo fi mu lay woo mais li koy duma mooy nga bàyyee ko terrain bi mu wax parce que amut lu mu wax ku amut lu mu wax boo ko bàyyee mu wax rek day nasax maanaam stratégie bi mu tëral euh, le fait que après ñoom Pape Matar di ko cokkaas dañuy ñëw ci terrain jóge ci seen terrain parce que ñoom am nañ lu ñu wax. yow yaa war a xam nag ne man am naa lu ma wax mais kii amut lu mu wax léegi nag bu ko fekk ci terrain mais boo seetee waa ji euh, daf leen a xëcc ci terrain amut argument mais mu créer xuloo bu kër yee xuloo nag léegi nag day nekk léegi ci li nga xamante ne bi mooy euh, terrain. léegi bu ko defee au lieu émission bi am njariñ li war a génn génn loolu lay yàq loolu lay kase bu ko defee la war a génn du génn waaw parce que moom munta leeral li nga xamante ni bi mooy li lëndëm amut nu argument yu mu ko leerale mais gis nga da nga ñëw mm-hmm. coppati ak émision bi njariñ li mu am yëpp mais da ngay jël lii nga xam ne mooy xuloo mu mel ni mooy émission bi te fekk lii du émission bi émission la boo xamante ne bii ñu ngi doon wax ci ay sujet yoo xam ne sujet yu am solo la mm-hmm. mais tey lii mooy li nga xam ne moom la ci nit ñi di retenir donc parfois moo tax nit ki mën na la dóor kuu sax wax la yenn wax yi mais danga koy bàyyi xam ni li koy rey mi ngi ñëw ci kanam mm-hmm. bul fexe ba li mu bëgg mu am ko fa donc système boobu mooy bi nga xamante ne bi moom la moom la jël ñaareel bi aussi tamit li tax ñu jël ko li tax ñuy jël genre pexe yu mel nii ba noppi bëgg a diaboliser waale en même temps média bi pour wane ni gis nga média bi ni ñu bañee Macky Sall la su fekk ne média bi mooy média bi gën ci président Macky parce que mooy ki nga xamante ni moo koy wax li xew di ko wax li nga xamante ni bii mooy li am man jàpp naa ni njiitu réew ki gën ci moom moo koy wax ki koy wax dëgg-dëgg li xew waaye ki koy nëbbal jafe-jafe askan wi di ko nëbbal problème yi nga xam ne ñoo am ci réew mi kooku mooy ennemi bi gën a rey man bu ma doon wax damay wax ni RTS mooy ennemi président Macky Sall parce que li mu koy defal yëpp euh, du loolu mooy li am ci penc bi loolu bokk na ci li tax tey président am na yu bari yoo xamante ne bi jàpp na ni def na ko te nit ñi gisuñu ko c'est parce que fa mu koy wanee safut nit ñi muy RTS ñii liñ koy wan peut-être buñ ko ko doon wan mu defar mais tamit pareen saa loolu bokk na ci liy nasaxal président yi ñëw pareen saa da ngay dem ba mujj gi dangay bëgg ñuy wax sa mérite say kii ak yooyu te loolu soxlawu ko nit ñi bu ñuy dund bànneex di dund neex rek day jekk-jekk rek réew mi ñëpp a koy waxandoo bu boobaa nit réew mi di ñëpp di taxawee ne dëkk bi naqari na boo tegee yëf yëpp ci yoon noonu la jékki-jékki rek nit ñëpp bëgg la nit ñëpp sopp la nit ñëpp naw la soxlawut nit ñi di la ko waxal mais lu nit ñi di dund la di ko yëg. Mhm. loolu nag dafa nekk loo xamante ni lu am solo moom mooy taal dëkk bi mooy saaga. mu nekk ay kàddu waaw loolu mooy wax yu wax la yoo xam ni ay waxi xuloo la rek yoo xamante ni bi moom lay wax noonu hmm. euh, parce que loolu la am li mu am rek la indi nit ku ne ak li nga am lii mu am rek la indi bañ tudd sa président ba tax ngay sosal nit sa président président bi ñoo ko bokk ñoom du dañu defe ne ñoom ñoo moom président Macky Sall te loolu mooy erreur <laughs> président ah. Macky Sall du président APR bu fekkoon ne président parti kese la kenn du wax ci ay mbiram mais dafa nekk njiitu réew mi yaa ngi dégg muy sunu président ñun ñëpp ñu yëkkati ko teg ko fañ ko teg respecté ko léegi nag moom bu ñu jàppee ne ñoom seen président la boobu lañ juum parce que noonu parce que du président APR président de la république le sénégalais yi di waxal. Mhm. tey jii président bu nekkee président APR dong yam ci kenn du ko wax dara. parce que waa partem dong ñooy am sañ-sañ wax ak moom ndax parti baa ngi dox wala doxut waaye réew mi la ñuy waxtaanee. Mhm. ñu teg koo xam ni moom moo jiite réew mi ñëpp nag am sañ-sañu wax ci joxe seen xalaat seen gis-gis ci doxalin yi nga xam ne mi ngi koy doxalee parce que ñun ñoo bokkee réew mi. Mhm. donc loolu mooy li am solo moo tax pareen saay ñu mel nii di dem ci plateau. Euh, du amal njariñ parti parce que APR man jàpp naa ne am na ay borom xam-xam yoo xamante ni bi ña nga fa. Mm-hmm. peut-être que nii bu ñu ñëwee ci plateau yi mën nañu gën a défendre mbiru président. Mm-hmm. mais ñu mel ni euh, image bu doy waar rek la ñuy wane ci ñoom ci seen parti bi. Mm-hmm. parce que boo seetee seen parti baa ngi fu ñu amal ndaje. xeex am fa kii am fa kon kon nag ñoom bu ñu dajee ci seen biir di xeex. kon bu ñu dajee ak ñeneen bu ñu xuloo wàcc nañ. wàcc

mënuñu nettali. parce que man maa fekke ba bi Barthélemy di dem kaso maag Thierno Bocoum ñoo mujj ci néegam ñun maanaam ñëw di yeesi Barthélemy caravane man ak Dadi Bibson ak yeneen jeune M23 yi di ko yeesi boobu jógagul ñu jiitu ko balaa maa egg g ci la fee bi am mhm. kon kooku am na lu mu ci war a xam li may njëkk a noté mooy sur cette affaire Barthélemy a respecte la justice fu ko justice woowee ci affaire bi non wuy ji na ak déclaration bu ci mënti am l'affaire nag fait plus de dix ans pourquoi nag un dossier yàgge nii mu Barthélemy même bu amee ci lii condamnation bi il sera encore maire de Dakar mais lu wu assemblée nationale xam nga lan la wax même délit moom quand tu es condamné assemblée nationale da ngay perdre sa mandat si le ministre de la justice non loolu laay préciser mais même délit assemblée da nga koy perdre mais mais code des collectivités territoriales mm. Barthélémy du perdre position maire de Dakar Barthélémy Diaz est-ce qu'il n'a pas parrainé Khalifa Sall bu dee turu Barthélémy mi ngi fa fekk mu conseil constitutionnel mën na tëbal bosam. bu ko tëbalee parrainage yu Khalifa day des douze au lieu de treize. Mm. nee na la quatorze lañu. ce qui peut invalider la candidature de Khalifa Sall te loolu warul am. ay Aïcha mi ngi noonu ji dégg nga si biir sax ba ñuy euh, tuddaale wu kii nga xamante ne ni moo di Khalifa Sall mais baxte bu ñu ko déggee. jàpp nañ ni problème mënul la am parce que wax na ba wax ki xamante ni moo ko war a remplacer ci assemblée ba. wax na ba wax ki ko war a remplacer ci askan wi. Mm. Barthélemy. Mm. waa ji di. Badara Gadiaga mm-hmm. waaw Badara Gadiaga de yàlla dogal na ni. Mm. Eh, man mii ci ñi ko njëkk a teg ci palaato ci laa bokk. moom Badara Gadiaga mii. ah bon. ci plateau Ataaya. boobu mu nekk ci booy booyu Idrissa Seck yi waaw bokk naa ci ñi nga xam ni bu bu dee sax njëkkuma koo dalal ci télé waaw muy ñëw di def li nga xam ni mooy euh, émission bi ñëwee da daan ki xam nga ñoom formation idi lañ quoi. waaw parce que wax na ba euh, tuddaale si Thierno bokk. boo gisee ni ñi waaw ci jamono yooyu ñoom ñu ngi ci Idriss Seck. xaw ba léegi sax est-ce que nekkul ni mu ngi ci Idriss Seck je ne sais pas. Mm-hmm. mais ci Idriss Seck lañ nekk quoi. boo gisee façon bi ñuy waxee maanaam dañoo nekk ak idi bay idi idilu <laughs> c'est que ñoom nag seen àddina dañoo defe ne ñoo gën a mboŋ nit ñi quoi maanaam ñoom mboŋ lañuy jaay quoi maanaam dañoo mboŋ waaw li ñuy wax naan booy da ngaa mboŋ hmm. ñoom bon ci euh, cercle boobu lañ nekk quoi hmm. cercle nandité mboŋ mboŋ lu euh, te léeg-léeg li ñuy def daf naan fàng maanaam parents dañuy wane ci ay mbir ne dañoo neutre dañoo lii dañoo lii mais ci suuf ay pic la ñuy def yoo xamante ni bi mm. euh, dañuy toll foo xam ne ñoom politiciens professionnels yëpp dañuy bokk gis-gis bokk ànd ñoom politiciens professionnels yi maanaam ñi nga xam ne jaar nañ ci seen parti yooyu pareen saa yi dañuy am benn jalousie maanaam dañuy yàgg ci yëf yi te ba léegi jekki-jekki rek am ku ne fiw daal dee dem waaw te jaarut fi nga xam ni fa lañ jaar moo gisee barte boo déggee mu wax naan dama xam politique dama def nii dama def naa dama def nii moom ak booy yëpp ñoo bokk génération mm-hmm. ñoom ak ñoom booy Badara Gajaga mm-hmm. samay booy lañ nag te dëgg fa yàlla Ah. booy yëpp samay booy lañ ñoom booy <laughs> ñoom Barthélémy ñi yëpp samay booy lañ ñoom waaw non maa leen mag nag samay booy lañ ñoom Thierno Bocoum bi ñëpp samay booy lañ <laughs> samay booy ñëpp wax dëgg fa yàlla dañ daan nekk dalal nga leen waaw dañ daan nekk ci école yeeg yooyu nekk booy di ma suivre nag ñoom ñu ñëpp wax dëgg fa yàlla eh, mais xam nga li am solo mm. ci àddina euh, mooy politiciens yi euh, bu ñuy wax respecter justice man bon jàpp naa ne Ousmane Sonko ci ñi gën a respecter justice la bokk mais dafa am fu mu jaar ak justice xam nga nit ñi dañuy tëb tëb rek ne Ousmane Sonko respecté wul justice mais du ñu interroger diggante Ousmane sonk ak yoon ndax li ko yoon teg teg na ko kenn amul benn sénégalais buy taxaw di la wax ne la déet déedéet ñoom politiciens yi yëpp fi Ousmane Sonko jaar ak yoon ñoom defe naa jaaru ju fa ak yoon. Ousmane Sonko am na yu bari yoo xam ne dogal yoo xam ne bu koy jël am réew moo xam ne dañ laa taxaw jiiñ la ne da ngaa médecin ba ñëw ne violé wut enquêteur ba ñëw ne violé wut ña doon garder kër ga ñëw ne violé wut ndeyu mbilli ga xëy ne violé wut mais terewut ba tey ñu la ne lañ lay poursuivre loolu xam nga ni ci yan base lañ taxaw pour mën a continuer ne dañuy def procès ci ban base c'est que lu warta ne buy ne ci nit ki nit kooku dafa am problème kooku du caagi ni moom moo respecté wut justice mais est-ce que justice respecté na ko loolu lañu ñu war a poser question dañu war a poser question ne Ousmane Sonko bi est-ce que justice respecté na ko mais pas ñuy wax ne respecté wut justice xam su dëggalee ne Barthélemy respecté na justice n'est-ce pas loolu mooy li nga xamante ni bi euh, wax na ko waa Barth mu dem wuy ji mu bañ a dem wuy ji peut-être que ni ñàkk a dem Barth wuy ji euh, mën na bañ a am kii waaw parce que xam nga Ousmane Sonko am na procès yoo xamante ni mënoon na bañ a dem wuy ji mënoon na bañ a dem wuy ji comprendre nga euh, donte am na yu bari yoo xamante ni bi dem na sax wuy ji yenn yi ba mu gi buy wuy ji sax nit ñi dañuy tiit parce que bu génnee lu ne mën naa xew donc am na yoo xamante ni nee na nañ ko sécuriser kiiwam donc am na yoo xam ne mënoo comparer daal di wax ne kii kat respecté wul kii ak mais leneen li mu ne ci biir wax ji boo ko dégloo euh, jàpp naa ni dégg ko déglu Barth dégg ko dafa mel ni am na loo xam ni war na xew li war a xew nag ndax ci xalifa lay bon. waaw ndax day bon ndax lu nar a bon ci xalifa la. Mm. wala déedéet parce que xalifa mm-hmm. euh, maanaam dafa nekkatul. maanaam yoratut mbiram moom jëmmi boppam maanaam yoratut yëf yi. contrôlé maanaam yëf yi dañ ko koy mën a jox rek wala ñu foqar ci ko koy jox da ko koy jox waa ilaa du ko ko jox dafa mel ni xalifa ci foofu la taxaw maanaam tey nekkul ni moom malgré fi mu jaar yëpp dem dialogue ji dem kii ak yëpp li ko ci dal yëpp tey candidature am moo gën a wóora di candidature Ousmane Sonko hmm. waaw candidature xalifa moo gën a wóori te dem na dialogue def na defi ji lépp waaye candidature moo gën a wóori di parce que candidature dafa am ku nekk ci diggante bi doon intermédiaire entre moom ak Macky Sall muy Barthélemy te Barthélemy moom dafa defe ne fi mu toll nii moom mooy jeu bi te moom xamul ni ab pion la bu ñuy dox rek moom xalifa da koy dox way laa Macky dox waaye moom doxut waaye moom dafay defe ni mooy dox maanaam Barth dafa yóbbu boppam foo xam ni boo koy xool dama da ngay da koy yërëm damay wax ne Bart euh, depuis ñu solal ko mbubbu mairie bi ba nëgë ni maanaam mbubb bi dafa yëmbax ci moom. waaw maanaam moom dafa dafa defe ne dafa defe ne moom fi mu toll moom man na lu ne. Mm-hmm. maanaam euh, maanaam daal bi mu solee mbubbu mairie bi ba nëgë ni da dañoo gis beneen Barthélemy mm-hmm. bu wuuteeg lool bi nga xamante ni bi sénégalais yu bari amoon nañ ci moom cofeel mm-hmm. sénégalais yu bari nawoon nañ ko sénégalais yu bëri jàppoon nañ ni sax romb na sax mbirum di doon maire mënoon na doon leneen c'est que Barth moom fi mu yegg si rek yéemu. Mm. sénégalais yi dépassé woon nañu foofu ak moom. Mm. Ah, comprendre waaw lu mu wax ci affaire mairie bi sax nee na moom parewul pour joxe ko bu dee poste député bi moo koy joxe dañ ko ko joxoon mm. askan wi ñoo voté jox ko ko en yitteel na ko de mm-hmm. askan wi ñoo voté jox ko ko mm-hmm. mu jaar ci ay yu ñu teg ne yëf yi nii lay demee mu nekkoon ci keneen mbir mi yoon lañ jaar dem ay élection yu mu gañe élection yi yoon jox ko mairie bi du moom mooy xoolaat ba mu neex ko mu koy kii ak yooyu bu dee yoon moo koy fuqar ci bu dee yoon xaw ma nag tax yoon lu mu wax ci loolu mais bu fekkee ne moom toogaat ci mairie bi yoon a ko ko fay bàyyi bu dee ginnaaw buñ bu fekkee ne daan nañ ko bu fekkee ne yoon a ko fay bàyyi moom wax dëgg fa yàlla yoon boo ko fa bàyyee dafay nekk mais bu dee yoon a koy dindi hmm. bu boobaa da koy ñàkk man nag procès bii mu jëm moom wax dëgg fa yàlla hmm. gis-gis bi ma ci mës am moom laa ci am hmm. man gëm naa ni Barthélemy procès bi wax dëgg fa yàlla wartoon na am parce que man jàpp naa ni dañ koo tooñ waaw parce que ak nu mu mën di demee demut fekk kenn ci méeréem la toogoon di liggéey ay nit ñëw fekk ko fa buñ ko fa fekkutoon problème bi du am la ma ca waxoon démb ak bërki démb loolu moom laa ci wax fu ma mën di toll parce que gëw ma ni képp ku ko ci condamné tamit man pour man wax dëgg fa yàlla tooñ nañ ko parce que man jàpp naa ni yi wax dëgg ci mbiri boppam la ne ci ci méeréem la nekkoon ci kiiwam la nekkoon waaye boo gisee nit ñi di ko yéene lii lépp maanaam Barth moom moo am ak problème ak askan wi mm-hmm. maanaam dafa am lu mu def askan wi loo xam ne askan wi bugguñu lu dul di ko gis mu nekk ci ay xat-xat ak jafe-jafe parce que dafa am fu ko sénégalais yi tegoon maanaam na xam ni rek lu ko nit ñi mere fañ ko tegoon a tax parce que am na ñoo xam ne bu ñu doxalee nenn kenn faalewu leen mais moom le fait que nit ñi di ko yéene tey kii ñooñu ñooy ñi ko yéene woon jàmm ëllëg démb mm. ñooy ñi ko yéene woon bànneex kii donc buñ jekkee-jekki soppi rek na xam ni moom ci sa jëmmi boppam moo am nen noo xam ni moom la doxalee ba tax lii di xew ni yëpp xew mm, d'accord macha allah xalaat bi rafet na lool ay Aïcha nag ñu jeexale ak euh, Ndeye Fatou Ndiaye mi doon werante ak Serigne Saliou Guèye ci émission boobu ñuy wax Ndoumbelane ñu xool ko dellusi posture bi moom mooy wut euh, solution parce que ñoom duñu dem le plan bi peut-être le plan Z parce que même B bi baaxul B bi baaxul bi baaxul bi Bassirou Diomaye ah, ah, baaxul bokk ci Ousmane Sonko doo dem. Ah, baaxul c'est-à-dire. expliquer loolu. as ba Bassirou mënut dem. parce que parti bi nga xamante ne moo ko bëgg a dañ ko dissoudre. ay après ah mais parti bu ñu dissoudre. nan nan la ñuy jëlee parti dissoudre ko ak motif yi nga xam ne moom la ñu évoqué. pour motiver dis dissolution boobu. parti boobu di investir nit. ñu ne eh, non ci texte laa ko teg. parti bu ñu dissoudre képp ku ci bokk tukkee ci parti boobu ah. ba un an munoo participer ci élection loolu ci kii bi la nekk ci code électoral ko wax non dama bëgg ngeen ma texte bi moo wax loolu bi la nekk wax loolu ci article day faatu bàyyi leen di jaawale jaawale wu ma jaawale wu ma loolu ci code électoral bi loolu loolu grand sëriñ Saliou ci code électoral bi la nekk. non dafa dàng rek. yaa ngi dégg les gens waa léegi nag Serigne Sallou nag nit ñi wax nag. waaw yow suñu waxee Ousmane Sonko rek a participer loolu mooy li code électoral bi wax moo tax ma ne la candidat indépendant nga mën a doon mais dafay fekk ne au minimum six mois milité woo ci parti defoo ah activité ci benn parti ah oui c' est le code électoral qui le loolu su maa ko inventé moo tax ma ne la plan B baaxul <laughs> léegi nañu xool beneen plan kay plan B bi sax baaxul ayca mi ngi noonu alaaji Ndeye Fatou de dafa mel ni dafay fàtte ni euh, Basirou même su fekkee dañu dissoudre pas parti Pastef li ngay <laughs> bañ ñu koy wax am na yeneen issue yu mën a am pour euh, Basirou mën a euh, dem ci élection yi mooy récépissé beneen coalition wala beneen parti. waaw Ndeye de ñu ngi koy nuyu de passage. Mm-hmm. mais li mu wax waxeewut xam-xam. Mm. waaw bëgg-bëgg la waxee maanaam ay bëgg-bëggam xam nga présage nit day wax solo moom li mu bëgg boo déggee ni mu ko waxee ak façon bi mu ko waxee mu baaxul baaxul kii lii boo gisee ni mu ko waxee rek mm. moo lay wan ne la ay bëgg-bëggam lay wax loolu nag baaxul mm. waaw nit bu fekkente ni danga nekk ci ab plateau di wax li ngay wax boo demee bay di ko wax da nga ko war a teg fu wóor rawatina bu fekkee ne yow da nga wax ne yow ab journaliste nga boo xamante ni bii li ngay wax journaliste mën nga féete mm-hmm. mën nga am ay féete mais li ngay wax aussi tamit day ko teg ci ay texte mm-hmm. parce que mi ngi ni bi ko Serigne Saliou laajee loolu nga wax nii wax ko ay texte donc gis nga ko am na problème pour def ko parce que nag Sénégal ñun boo gisee sëñ Saliou di sonal gaa yu bari ci plateau yi. Mm-hmm. Eh, day bëgg li ngay wax. nga koy leeral nga teg ko fu leer. Mm-hmm. boo gisee l'autre moom ak eh, maître El Hadj amoon nañ fa ay problème mm-hmm. maanaam lépp lu muy wax rek maanaam da ku mu jàmmaar lool ci lool rek da gis ni moom li muy wax eh, dina am fu mu ko teg. mais nag parensaay boo déggee te comme façon bi Ndeye waxee nii. dafa mel ni façon mm, sa mère yooyu di jaay beñe Euh, toog <laughs> euh, xamuñu dara ci politique. <laughs> Eh, eh. li ñu dégg ci mbedd mi. léegi ñu toog rek di ko wax naan waaw du dem parce que Basiru baaxul. loolu ah, boo demee tey am na maire yoo xamante ni bi boo leen fekkee ñu toog ñoom xamuñu lu bari ci li nga xamante ni bi moom mooy wàllu politique maanaam noonu nii lañ koy waxee. Mm. de waaw loolu lañ wax mbir moom journaliste warta nekk ne loolu rek lañ wax warta ooyofal mbir mi. parce que nit la koo xamante ni ki def na formation fa mu ko war a defee jaar na ci école yi nga xamante ni bii tey defe naa ne école yi gën la ci wàllu journalisme mais sa xarit bi ah. Adama Fall mi ngi ah. naan Serigne yu bàyyi ko mu wax parce que Adama moom caaxaankat la xam nga moom dafa jël mbir yi moom moom moom moom day caaxaan rek Adama Fall man moom mbirum Adama Fall moom wax dëgg fa yàlla ma jigéen ah. euh, euh, mbirum Adama Fall moom li li li kii di wax li Bou Siteu di wax daan sama niveau romb noo foofu <laughs> Adama Fall moom ma jigéen sa niveau dafa war a romb Adama Fall waaw parce que Adama Fall moom vraiment moom moo toroxal boppam ci pénc mi waaw ñëw ci pénc bi def loo xamante ne bi ne kiiwu kii a ngi ni ñëwaat ci pénc mi daal ne hmm. jëlu ko hmm. loolu nit ku mën a def loolu moom kooku moom wax dëgg fa yàlla Euh, ku xeebu la ci euh, ci askan wi ba tax na moom ay waxam jarta sa d'accord mais en tout cas Ndeye mhm. lii nga xamante ni bi euh, moom lay def daal donc na gën a xam ni nag ab journaliste la boo xamante ne bi jaar kii parce que war na dem ba ay prof yi ko doon jàngal bu ñu ko xoolee tamit am ci moom benn fierté bi mhm. mais am na noo xam ne boo koy doxalee ñooñ ci seen jëm bopp dañuy wax ne kii jàngalu ma ko woon lii mhm. pareen saay bul topp sa xol nit ki du caagi ni daf lay neex wala mu naqari la mhm. mais ñi nga xamante ni bi tey Ousmane Sonko ay avocat ñoo ko wër ay juriste yu mag ñoo ko wër mhm. bu ñu demee ba tànn kafuñu ak sénégalais yi li ñuy tànn xam nañ ko te teg nañ ko fu wér loolu nag nga ñàkk a tenir compte ci loolu mooy pour man nit ku xamut la maanaam ku xamoo Mhm. parce que loolu d' abord balaa bu ñu la waxee ne Ousmane Sonko tànn na diw. Mhm. diw mooy seen candidat dem na tànn fiche parrainage. Mhm. mu muy Bassirou Diomaye Faye di numéro de war nga xool ni xool nañ ici yooyu yëpp. ba xam ni kii war na mën a nekk candidat. parce que Ousmane Sonko tey jii. Euh, nekk candidat moom dañ ne Bassirou Diomaye Faye mais xam nga dañ ne dañ ko dindi retiré ci liste yi rek loolu mooy li nga xam ni mooy problème am mhm. fi mu toll nii te Bassirou Diomaye Faye nag foofu yeggu fa moom retiré ko ci liste yi du dëgg donc Ndeye Fatou bu bëggee taxaw ne baaxul mhm. kooku munu ko argumenté mhm. mun ta teg loo xamante ni bi lu taxaw la d'accord Aïcha bàyyi la nga tàggatoo waaw di am mbégte ak kontaante bu baax a baax sànq ba léegi euh, bétti mi ngi mooy woo di ma tàllalale waaye yàlla dogal na macha allah gis nga xam na ni maa ci liggéey bi <laughs> donc li mu doon def noonu yëpp pour jéemoon maa tiiñal waaye sunu borom dogal na munu maa tiiñal macha allah parce que tiiñal ma la doo waaye bi mu ñëwee fekk na ma. waaw ñuy joxante dig daje beneen <laughs> incha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom ajaratu Béti Mbuub euh, di nuyu nag Baye Assane Mesere mi nga xam ne saay su nekk rek daf ñuy teg pression ci liggéey bi surtout l' émission des émissions moom moom fonk na ko lool ñu jaajëfal itam Modou Diouf Abdou Top ak Lay Diallo mooy nuyu nag sooy bu Diop sama xarit bi sama xaritu jëkkër ma jëkkër nee na mu ngi lay nuyu nee na. man la la dénk daf ma daf ma laa dénk xaw ma ñu koy waxee noonu yow yaay sama kilifa fii kon nag dégg ko bu baax a baax message la bu ma lay sànni mu ngi noonu may jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne nag ñoom ñu doon suivre rawatina nag waa diaspora bi di nuyu ñëpp jaajëfal ñëpp di leen jox di daje nag beneen di ci l' émission des émissions.